mën na ñàkk xëy na nag euh, loolu mooy l'arme des faible ñi nga xam ne amuñu programme wala amuñu vision donc euh, lu ñu mën moom mooy saaga wax-wax ji ñaaw ay ay invective ay insulte ay outrage euh, manipulation yokk ci xar mi karaw fen et cetera et cetera mais heureusement que sénégalais yi ak violence mais heureusement que sénégalais yi Euh, xam nañ bu ñu euh, boxam ak bu ñu soq bu ñu mooñ donc euh, te xam nañ tamit fan la mburu mu tàng mi di xay xoyom xoyomee loolu rek am na solo donc ñi jàng ci ne macha allah Sonko ñëw na ak programme bu am solo programme boo xam ni bu futuriste sax vision futuriste bu am solo bu boo xam ni buy wax da ngay kontaan da ngay gis euh, vision bi mu am ak tam da ngay gis aussi ouverture am lu naa ouverture d'esprit bu mu am euh, da nga naan sax est-ce que waa ji du bitim réew la la dëkk la gën a dëkk que Sénégal loolu yëpp nag lu koy maye moom mooy ouverture d'esprit donc euh, mu. vraiment def campagne bu am solo wër Sénégal gi yëpp ba dajal ak ay programme euh, macha allah gisuñu ko mu dem fenn génne jaasi gisuñu ko mu dem fenn coraate gisuñu ko mu dem fenn jamaate ñu ko mu dem fenn gaañaate donc kooku am na ay argument argument yooyu la développé loolu moo tax population bi topp ko fu mu dem rek nga ne li fi nekk ci doomu aadama du amaat feneen saa yu continuer rek nga gis ni li muy dajale ci ay doomu aadama euh, nit musu koo gis te nit musu ko am te ñi nga xam ne nag bu leen fàtte ni kenn fayu leen kenn joxu leen xaalis kenn jëndu leen kenn yabu leen ci ay oto pour une première fois dans l'histoire politique du Sénégal mu benn leader euh, politique boo xam ni day na ay foule yu énormissime te amul kenn koo xam ni dañ laa jënd amul kenn koo xam dañ laa yeb ci oto mu kenn koo xam dañ laa jox t-shirt te fu mu romb rek mu mel ni euh, ab prophète moo fa romb ñi di di ko dégg déglu macha allah muy lu am solo nag mooy muy lu am solo léegi nag bon il s'est trouvé que euh, c'est un fin stratège euh, ci campagne am yépp dafa xam nu muy tuqee gars yi dafa xam nu muy yëngalee gars yi et malheureusement gars yëpp dañoo daanu ci piège am Euh, parce que fu mu dem dina wax programme am dina wax vision mais da ci boole euh, di leen roofaale tàngoor mais nag euh, politiquement parlant amul lenn li nga xam ni correctul c'est-à-dire c'est correct politiquement parlant maanaam du leen saaga du leen du leen du leen wax lu ñaaw du leen mais de na leen cuq politiquement di leen cuq quoi di leen cuq mais malheureusement ñoom ñëpp réponse bi euh, ça laisse à désirer seen i réponse des fois c'est insultant des fois c'est outra outrageuse euh, des fois c'est menaçante c'est voilà quoi euh, munoon na bañ a munoon na munoon na bañ a amee noonu parce que nit bu fekkee rek dafa xam lu ngay développé waa ji ñëw cuq la yow it am na nu ko mun a répondre ci yar ak teggin ba pare eh, di nga di nga gagné sax ay point di nga ay point bu fekkee nag yow li ngay lu ngay woote maîtriser nga ko di nga gagné ay point mais souvent euh, Sonko bu demee fenn après bu waxee projet bu waxee vision da leen di cuq mais bu leen cuqee saa su ne rek kuñ génnee saaga la ñuy def day fen day kii day nangam taan nangam vraiment c'est c'est dommage c'est dommage pour ay ñoo xam ni dañoo woote ne euh, ay leader lañ ay leader politique lañ je pense que nit bu demee ba ne leader politique nga dafa da nga war a taxaw euh, mentalement da nga war a taxaw ci xam-xam ba nga xam ne fu ñu la cuq di nga mun a tontu man de bu fekkoon maa ngi campagne day euh, euh, bu ci nekk rek buñ ma jëmale rek dinaa ko mën a tontu ci yar ak tegin ci xam-xam et puis voilà mais amoo programme ba pare tontu sax munoo ko c'est un peu dem ci région yi di gaañaate que di coraate jaasi di yàq di et cetera et cetera vraiment comme un gladiateur euh, sénégalais yi soxlawuñ loolu donc vraiment tam aussi Sonko euh, macha allah def na campagne bu bu mucc ay campagne bu doywaar campagne bu bu bëri xam-xam campagne bu bëri vision campagne bu neex sax campagne bu neex a neex a neex bu naan réussite total bu depuis bu mu tàmbalee ba suñu jonn yàlla tey Euh, macha allah man nag j'ai beaucoup noté j'ai beaucoup noté euh, bu weesoo loolu aussi bon gis ngeen opposition bi je vais pas m'attarder là si euh, lu dul ay wax ju ñaaw saaga wax waxi dof menacé gisuma ko gisuma ko man nag dama nawloowul yàlla dafa def ne nawloowuma ay ñoom Barthélemy Dias nawloowuma musuma nawloo Barthélemy Dias ci idée musuma ko nawloo ci vision Barthélemy Dias nag du koo xam ni Euh, ku ma jaaxal la wala ku bees ci man la vraiment daje nañ maintes fois maintes fois euh, bu ñuy euh, bu ñuy organiser manifestation yooyu nga xam ni day am ay dañuy def genre meeting day day day faral di ñëw doon na ñëw foofu am na boo xam ni moo sama benn grand Lopi Diagne bu ngay xam sama kanam la ñu ngi nii toog nii chaise mu toog ci chaise ñu taxaw l'opinion ñu tegal ko chaise ñu toog noonu sama wet donc yéemu moom man Barthélémy Dias musuma gis ci moom xam-xam sincèrement musuma gis ci moom xam-xam y a des yoo xam ne am na ñu ñu doon leader ci ñoom mais man moom gisuma ci man man man c'est pas parce que nit di ñoo lay forcer ne la leader nga que man sama leader nga no man sama leader de borom xam-xam la sama leader euh, ci image yu euh, lu mu mbaa la sama leader ci ay image yu Sankara la sama leader ci ay image yu Kenyatta la man ñooñu ñooy samay leader politique ñooñu mooy ñooy samay leader panafricaniste panafricain ou souverainiste donc boo amee wanewul si angle boobu rek man munoo doon sama leader quoi parce que gisuma lu loo mu guuxee lu war a tax ma lay topp wala ma lay déglu parce que donc Barthélemy Diaz man nekk na ni boo xam man xam naa ko sincèrement xam naa du benn yoon du ñaari yoon du ñett yoon yoo xam ne toog nañ nekk nañ ay ay ay ñun ñu organiser ñun sax ñooy organiser mu ñëw. du du du du ci kàddu la mu mës yéeme du ci xam la mu mës a du ci vision la mu mës yéeme bon damaa jàpp ne rek <laughs> comme man la quoi donc euh, Bougane moom waxatuma ko Bougane moom waxatuma ko moom moom il s'est improvisé leader il s'est improvisé leader parce que la nature a horreur du vide dañoo xëy rek gis benn benn lapin flingueur benn euh, ab caga bu taxaw buy taxawaalu biiral gauche biiral droite tëddee kii tëddee kaaxee rek ñëw rek na leader leader politique nga ko quoi <laughs> sincèrement moo tax ma koy wooyee gëm sa bopp jom te loolu euh, am na ay am na ay archive quoi bu ñu duggee foofu foofu nag bëgguma fa dugg mais bu ñu duggee foofu rek moom xam na ni euh, xamul sax nu ñuy doonee leader mais c'est des gens qui qui s'improvisent leader ko en fait wut ñaari nit ñetti nit autour d'eux après ne ne ay leader lañ quoi donc euh, Euh, Pape Djibril Fall c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup bu muy nekk ci télé bi en tant que un journaliste di euh, chroniqueur bon di gis comme nu may comme comme comme nu ma kiifee Diallo booy Diallo bu nekk Seneweb donc man pour man euh, kooku c'est pas un leader mënoon na yem ci télé yi comme jàlloo comme comme yeneen ak ñeneen comme ñu nekk Walf et cetera muy muy muy chroniquer wala di wax ci situation mais vraiment vouloir s'improviser leader c'est autre chose quand même donc c'est c'est un peu donc donc opposition bi je les suis pas je les suis pas euh, du ma leen déglu parce que comme ni ma leen ko waxee du Barthélémy Dias moo ma intéressé du Bougane moo ma euh, du du du du du boy boobu noonu moom moom ma intéressé vraiment ñoo xam ne lañ bu fekkoon tey politique bi politique sénégalaise bi nekk na au summum high level xam-xam et cetera ñooñu duñu sax improviser wu parce que bu dee Barthélémy Dias violence la xam wax waxi doof bu dee buggaan taxawaalukat la biiral gauche biiral droite jël ay ay jigéen te dee leen ci néeg jabaram et cetera foofu foofu bugguma fa dugg parce que euh, li ma ko waxoon respecté na li ma ko waxoon boo leen seetloo euh, man it damay damay damay damay dama damay respecté sama kàddu quoi dama ne woon boo duggee foofu rek man ma man man ma ma futti la taatu neen comme nu la sa ndey juree parce que xam naa la boo baax a baax a baax a baax xam naa la yow say dossier moom yow kenn warul la gis ngay wax waxu tubéy pantalon wala silib waaw kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn voilà te lu ci gën a graaw nag lu ci gën a graaw j'ai beaucoup travaillé ak say ex jabar j'ai beaucoup travaillé ak say ex jabar donc loolu moo tax euh, te bu ma ko waxee ba léegi tamit gisuma ko muy waxaat mu dugg ci ci domaine boobu gisuma ko muy muy taxawaalu ci domaine boobu euh, ba mu ne bu mu jógee Touba bu ñëwee dina ci kii ba léegi waxu ci vraiment te politique yi ñuy def yëpp loolu waxatu ci donc mi ngi may dégg dégg na ma parce que wax naa ko boo duggee boo duggee foofu rek ma fekki si la te ma la fekk see musiba naaru laay nga dinaa la wax lépp lépp lépp lépp da nga biiral nu nga leen biiralee ba na reyee sa jabar ba sa jabar na ko reyee ak jour bu nga xam ni bu mu la bettee ak kam la bettal ca ca lalam ca lalam ca feebar nu mu feebaree di am cancer ba dee xam nga ne yow yaa ko rey donc euh, mais monde boobu noonu ak ñeneen ak ñeneen ña nga biiral ña ngay jé ka nga jé ka joxoon deux millions yow di voyager jox ko euh, di dem defar interview fële ne ca Versailles Ablaye Wade wadd ne ko yàqal biir bi yàqul biir bi problème yi nga am journaux yi nga fay tout so sa vie mi ngi fi ak ñi ngay liggéeyal liggéeyloo fële si sa télé bi di leen tëddee sa sa vie ngi fi quoi sa mi ngi fi sa moom yow buggaan sa vie moom mi ngi fi moom sincèrement sa opération rëbb dem pare na bu yàgg mais comme daw nga daw nga foofu man tamit dama lay bàyyi parce que nee naa la soxlawuma la mais boo duggee foofu zone boobu boo fu duggee rek dama lay éliminer kooku moom man la ko maa teg sama loxo ci kaamil la boo fu duggee rek ma rey la boo fu duggee rek ma la ok euh, euh, comme duggoo fa nag alhamdulilah donc bu weesoo loolu donc comme nu ma leen ko waxee rek Euh, opposition boo xam la ci bu ma yemee foofu quoi ñooñu moom amuñu ay argument du xam-xam du donc man bàyyiwuma leen xel quoi te saa su ne tam boo leen gisee bu ñu génnee c'est normal nit ki lu nga lu nga nàmp rek ngay ngay ngay gàll donc boo gisee da ngay gis benn euh, vidéo yu ndaw yi may gis sax yéen a koy dagg mooy bu ma tourné gis benn Barthélemy Dias mu taxaw naan ay kii dafa am sëriñ bu ko wax ne dafa am ay saraxu nit xawma yu ñuy rey ay des conneries ay nit yoo xam ne Sonko dañ ko ne na saraxe ay nit yu ñu war a rey direct tuuru fii c'est que mais c'est normal li loolu la nàmp ko amul xam-xam amul xam-xam donc munul wax leneen du la wax leneen amul xam-xam donc euh, c'était un vendeur de pizza aux États-Unis buñ bu bàyyam sàcce alal gi jox ko mu dem euh, fii nga xam ne moom mooy Amérique lu mu fa taxawee moom mooy da doon euh, bon jàngul après mu ngi jaay pizza jóge fa di wëndaalu taxawaalu loolu rek moom mooy euh, jaar-jaaram quoi euh, malheureusement donc bu loolu aussi donc kooku mënul wax leneen mënul wax xam-xam parce que man je me demande un leader un leader politique ñu ñu braquer la caméra ngay ngay wax ay waxu waxu da raw na da waxu daan waxi dof waxi dof quoi ay non kii nii dañ ko dañ ko dikk sarax sarax yi moom ay rey ay nit ay nit yu war a dee ay néew ay c'est-à-dire euh, ba pare il sa sent bien pour moom xam-xam lay wax xam-xam pour moom def na lool wax xam-xam xam nga ça c'est incroyable doo dem mukk mukk mukk au Canada politique benn un leader taxaw ñu dégg ko caméra wala muy